dara du ñu jëm si dara. aywa tàndarma tàndarma. eh eh suñu mbékkee. yow du ma la jaay. suñu mbékkee yow jàpp bal jàpp katu bal du ma la jaay. suñu mbékkee waaw kaay kaay kaay. aywa aywa tàndarma. tàn tàndarma laa jaay dama damay dem tàndarma la. yow yow yow yow lan ngay jaay. tàndarma tàndarma. gisoo ngay jaay gisoo. Ah, daa nga mbuus takk yi daa rëy sax. dafa ngante bu ngante la bu ngante. ñun suñu waa kër suñu waa kër ñoom dañoo bari. xam fii yëpp xañ nañ fi da nga may jox ma dem jaay. ay ay seen kër ay groupe nit la groupe nit. groupe xañ nañ fii yëpp fii dafa dañuy fees léegi da nga may jox ma dem ma dem jaay tàndar ma. yow xam xama xama xama man ak sama rakk bi seexu dañuy dañuy wër di jaay tàndar xama sama rakk bi dem na jaay man damaa war a jaay man tey seexu dem na mu jaay wañaan moo ñu jox tàndar moom bari pour ñu jaay xam dañuy xam dañuy liggéey tey. uy ma léegi da ngay indi ma dem jaay la ma dem jaay la. ñaata ñaata. lii benn benn ñaata ngay jaay. dafa lu gaaw kaw ñeent ñeent ñeent ñeent ñeent benn benn benn benn cent franc cent franc. benn benn tànn wala mbuus bi franc. mbuus bi si yow da ngaa dof mbuus bi cent franc. ay ma ñu jaay barke téere maam yàlla. Hmm, barke téere maam yàlla bu dee sama ñëwaatul. bat ana Cheikh Cheikh. Cheikh dem na. moom Cheikh keroog sax maa ngi maa ngi doon bëgg a noq. keroog xool dama fekk suñu buntu kër saa yow daa daw. boo ko noqee naa la noq. naa ko mos a noq. xool da ngay toog xaar xaar xaar xaar ma. Hmm, hmm, maa ngi xaar dégg nga. waaw du ma yàgg. ok ok seen kër groupe nit la dañuy jënd yëpp. waaw sama xeet du ko kenn de. waaw yow yow yow kii da kay da kay jaay kii seen kër groupe groupe nit la seen kër groupe ay groupe nit dafa nekk cent 350 nit ñooy ndogu foofu. xam naa wañaan wañaan wañaan wañaan wañaan muuma su ma demee dama koy wax tàndarma bi dama koo lebale dama koo lebale waaw dama kaa lebale. yàgg kii daa yàgg. su baaxee. neex na de. yow yow yaa doon xaar sànq suuf bu njëkk yow yaa doon xaar jeexal naa jeexal naa. jeex na. dama suñu baax lañ koy jiiroo jiiroo. seen que groupe nit la dégg naa groupe groupe groupe. xam nga benn 100 francs ngay jaay. ñoom ne nañu benn 200 lañ koy jël. ak kay yow yow yow yow yow da ngaa baax. man damaa mën a jaay rëy ma tey rëy ma tey. suñu baaxee. téeñ téeñ bi laay rek yow sa bopp bi ay téeñ yi ngande ñoo fi ne ay téeñ toll comme nag. yow yow da ngaa soxal da ngaa soxal yow suñu baykat. waaw waaw waaw waaw ba baax ma dégg nga waaw jo jox ma jox ma sama xaalis damay dem damay dem. dañu ko leb suba lañu lay fay suba te suba boo ñëwee amee ñu jox la sa xaalis. i i i i xama xama xama kon waaye moom daf may ko mu ne bu suba suba lay fay yow xama xama xama waaw dem suba ni ma jox xaalis may jox la sa xaalis. xama wañaan moom dina ma dóor xama dina ma dóor. dina ma dóor dem suñu tànk yu weex yi. suba suba sama suba na ma ñëwee na ma jox sama xaalis. waaw suba naa jox sa xaalis ñëw. suba na ma jox de dégg kaa nax dama kaa nax ñu leen di ay jaay man man fàttaliwul naa fàttaliwul naa damaa wóor waaw. mu denc ba dog ba dogal ko. xoolal xoolal xoolal xale diyam dëkk boobu noonu te mu te mu njool. te te te waaw daa dama dama dama wax dama laa nopp. ak neex. xool mu bëgg ma si xolam ma ma laa koy ma laa koy ma laa koy lebal tàndam kaa lebal. et eh, an sa bos bu la wañaan man man benn kër bu am groupe nit fële kër bu am fukk ak téeméer ak juróom ak ñaari nit. ñu nekk ñu nekk ba si ko Ousmane si ñoom laa ko lewal ñoom suba suba dañ may fay dañ may fay ñetti dërëm. ñaar dërëm ak ak juróom. ak ak 100 francs bi ko wañaan jaay dama leen kaa lebal dama leen kaa dama leen kaa lebal. ke ke ke dama su ma ñëwee dina dina ma fóon naa tamit. da lay fóon. ma ne ko yow dama koy dangaa ceg xam nga dangaa ceg laa ko. waaye moom kon kon danga may mayaale dégg nga danga may mayaale moom man fii kese fii kese ci bakkan bi kese. loolu loolu kenn ku bokk. loolu loolu loolu loolu kenn ko bokk. yow yow ni nga soxoree yow. yow benn nit kenn ko bokk. nañ si wañaan ñu ñu wax ko dañ kaa lebal dañoo lebal taataanama bi dégg naawa ñaamuuma malay jaaji góor gi waaye sëñ Mbàkke ak seexu Oya Sow Oya Sow kii kii am na doole de kii bu ñu ko waxee dañu def dinañu rey defuñu dara nang nang da nga nelaw te yow yow boo nelawee nit ñi dañuy sàcc nit ñi nit ni dañu koy sàcc waa ñu dañu kaa lebal waaye nit ñi ah si waxu mu toog fii muy tawee ko comme si. ñëw nañ ñëw nañ waaw ah. ah, ñëw nañ si de. yow yow yow xanaa nekkoo sama mag xanaa nekkoo sama mag yow nga tàppite yow wala munu la wax ko dañ kaa lebale. ku nekk day wax sa bopp nekk day wax sa eh, sa rek laa doom waxaale sa ma. yow doo waxaale ba pare. tawee ko ko jéppee. nga naan. tubéy bi baax nga tooñ waaw ñun ñun da ngaa xiif tànn tànn moom tànn moom ñu joxoon waaw waaw dañ kaa lebale de waaye dañ kaa lebale de lu wa lu wa lu wa nee na gisul dara waaye dañ kaa se ak sama bos ku jigéen ki jigéen ko moom laa ko lebal man man man man man pa bi nekk fee tamit xotti bal paa bi seytaane boobu tamit xotti bal xam nga kër nga nit la am moom laa ko lebal kii tamit encore tamit moom laa ko lebal xool waaye waaye waaye lebal bi ak a neex suba suba suba dañ lay jox xaalis bu baax dañ lay fay suba dañ lay fay. ay ay saako yu bëri am xaalis suba suba suba dañuy indi sa xaalis fay la. waaw waaw nan la fay. waaw dinañ dinañ la fay bàkk yàlla dinañ la fay dinañ la fay. suy suba dama toog dama toog nañu baax ko noppi yow waaye ñun ñun xam nga xam nga suñu amoon lu ñu gënal ñun dañ koy jaay waaye waaye àdduna àdduna àdduna bi ndax àdduna daal doy waar. koya aduna daa doy waar si ma wax aduna daa doy waar man ma wax ma ba ba pare muñaw muñaw aduna nii la yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk yàlla tuddee yàlla weer koor jooy baaxu ci tuddee yàlla wax allahu akbar i te xam nga xam nga yaa waxaat na noppi dégg nga su suba dégg nga tuddee yàlla tuddee yàlla lu fi xew man danaa ko wax. te xutaa booy ci koor gi. yow yow yow yow yow wañaam li def métti de. gaaw gaaw suba dañ koy fay dañ kaa leble kese kese kese loolu kese mu nekk fii di jooy jooy seytaane nii. ba pare ba pare ba pare ñun yóbbu tàndalmaa xam nga xam nga xam nga wañaan xam nga wañaan daa baax moom moom moom daa baax ba pare ñun ñu dem ñu dem yóbbu tàndalmaa ba pare. yow yow yow yow lii da ngaa tàpp lii da ngaa tàpp trop lii dawal boobu nag. salaamaaleykum. maaleykum salaam. xale yi na ngeen def. ñu ngi fi yow sa moroom nekku fi. may nuyoo nga may cëba. kii sama rakk dafa réew dafa réew. ah xamadi na de moom. dafa réew bitik amu fi wala fuy jaay tàndarma. tàndarma waaw. te te xool boo jàddee ni nii nga juba ba si kaw ba si ginnaaw ba si kaw ba juba. waaw am na ku taw foofu benn paa wañaa wañaan wañaan la tudd wañaan sow wañaan sow. te kooku kooku day jaay ah. bu ko ñu ngi fii dégg nga. d' accord merci beaucoup. ko wax rom naa ay xale fee. d' accord merci beaucoup dama. sa mag gi nag nga yaraat ko xamul boppam de. waaw te booy bokk di daje jeex man ni ma jotoon a yor ma jëndee ko ndox sama nit dana